la ilaha illallah la ilaha illallah la la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha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 la ilaha illallah sëriñ bi nee na assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi nee na imam nee na ñu jégalu bu baax a baax mais kàddu yi ma bëgg a yëkkati mais waxee nag kàddu sant rek la de mais gannaaw nag bu ma siyaaree sunu sëriñ sëriñ si yàq baat ak lu mu demee ñu ngi ko ñaanal nag mu yàgg ci lool nag te am ko te doon nañu ko sant nag bu baax te sant nawet bii mu mbooloo nag ñoo ngi leen sant bu baax mais xam naa day wax ñu wër moom mais waaye baatu bi nag moo dama noonu ñu ne kon nag ñu ngi leen sant bu baax. ndax ñun kat amul lu ma Cheikh Ibra. te soxla wu ñu leneen nag. waaye gis nañ ne ndox mi la ñuy dox. te ñu koy tubaab. loolu bët loolu la de. nit nag bu dee jaan. mais nit nag bu dee jaan. gis ay sangam bi def lu ko dégloo. gis nag ay sangam bi def lu ko dégloo. mais loolu kat kan la ko wax nag. te am na jaay la ñu gën. kan la ko wax. lii ñu def ci qualité gi. mais waaye lii ñu defoon ci qualité gi. muy liggéey bu rëy. muy liggéey bu rëy rëy. taxaw ko ba mu egg nee. taxaw ko ba mu egg nee. tabaski yi ñëw. tabaski yi ñëw. ñu jaaraat foofee. ñu dellu jaaraat foofee. loola de ku di taal bi. mais loola de képp ku taal bi. ñi mbokkal yaakaar seex la. ñi mbokkal yaakaar seex la. ñoom ñëpp seen xol seet na. ñoom ñëpp de seen xol seet na. di ñaan nag mu yàgg lool. di ñaan nag kàmbal yàlla yàggal ko lool. mu yàgg lool te ànd ak ñu yàgg lool ñàkk yàlla bu béy. waaw suñu xol sedd na. nee ñun de suñu xol sedd na. xanaa dañuy jox sëñ Saliou. nee xanaa kon ñu jox kàddu bi rek sëñ Saliou Fall. daal loolu lañ bëgg a cant googu lañ bëgg a eggale rek. nee kàddu googu daal lañ bëgg a eggale muy kàddu cant. ñoo ngi nag ci seen ginnaaw. nee ñun nag loolu la ñu fas yéene nekk seen ginnaaw saa su nekk. di déglu ndigal. di déglu ndigal. amul guddi na. amul guddi na. amul bëccëg na. amul bëccëg na. nañu dimbali nag. nee nañu dimbali nag. bañ man koy jekku. bañ man ko jekku. يمكن أن يكون بريقا السلام عليكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني نيونا بكم اليوم ñu jot naa ñëw sëriñ bi suñu jëwriñ jii ñu def ci suñu kanam ñu jot nag ñëw sëriñ am ni moom bi nga xam nag ñoo fi nekk Cheikh Mate Sy. ñu ngi jot ci ab nuyoom ak ub cantam. ñu ngi jot ci nag ak nuyoom ak ub cantam. ñun murid yi. ñun murid yi. nee na taxawaay bi. nee na de taxawaay bi. rafet na lool. nee na rafet na lool de. mboolem digal yi. ndax mboolem digal yi. lu ci de. nee na lu ci nag. jafe ngeen ko nan ko bëggee. jafe ngeen ko nan ko bëggee. ba xolam sedd ci guy. ba xolam nag sedd ci guy. la ko tàmbalee ca ndogu ya. nee na la ko tàmbalee ca ndogu ya. te la ko jiitu ci liggéey stade te fekk la ko jiitu moom li ñu doon stade ba mais lenn lu ci nekk da ngeen caa nekk rek te mosu leen caa jóg ba jigéen ñi tey ñëw muy gàtt tabaski yi ñu leen doon jébbale nag ba ci démb jébbal ko sëriñ bi mais loolee du rafet ndax lii ngeen nekk. tàqaliwu nag tàqaliwu leen ak loola. ñu tàqaliwu leen ak loola. ndax na ngeen ko waroon na ngeen ko daan defee rek. ndax na ngeen ko daan defee rek. noonu rek ngeen ko defee waat. noonu rek ngeen ko defee waat. suñ daa ngi am ci yéen ak cant. suñ daa ngi am ci ñoom cant. di am ci yéen mbégte. di am ci yéen mbégte. nee na ànd bii mu ànd ak yéen de. ndax nee ànd bii mu ànd ak yéen de. am na de naxu leen ko de. naxu leen seen bopp yëpp. ndax ndax seen bopp. yeesu wuñu. yeesu wuñu. seen digal leen. seen digal leen. ngeen bàyyi ko ndigal la. mais suñu kër bopp. yaa loolu defuñu ko de. sëñ bi nee na. mais Baye Fall moom. li mu am. mooy jëfe ndigal rek. daan jëfe ndigal nag la am. nee nga daan jëfe ndigal la am nag. yéen a ngi koy jëfee. te yéen a ngi koy jëfee. nee kon booba ñëw na fa njort. liggéey bii nu génne nag. ndax liggéey bii nu génne nag. barki démb. barki démb. dañu xam ne beneen a ngi ci sunu kanam. lan xam ne beneen a ngi ci sunu kanam. ndax bi ñuy ñëw fii kat. ndax bi ñuy ñëw fii kat. ci liggéey lan bàyyi ko. ci liggéey lan bàyyi ko. liggéey boobu kat. te liggéey boobu kat. yëngagul. yëngagul de. te sëriñ bi daa bëgg. te sëriñ bi daa bëgg. ni ko sëriñ bi santoon. ni ko sëriñ bi santoon. mu mel na. mu mel na mu mel nii. mu mel ni. kon nag. kon nag. nan jéem a góorgóorlu. nan jéem a góorgóorlu. takkaat suñuy laxasaay. takkaat suñuy laxasaay. fàttaliwaat suñuy pas-pas. fàttaliwaat suñuy pas-pas. te xam ni. te xam ni. duñ mukk. nee kon nag. mboolem murid yi. mboolem murid yi. te aju ci kër Cheikh Ibrahima. te aju ci kër Cheikh Ibrahima. nañu xam ne. nañu xam ne. lépp. ñun mooy nag ba. nañ góorgóorlu nag ba. buñ fi jógee jàmm. buñ fi jógee jàmm. dama leen koo xewoon kër. na nañ koo xewoon kër. yéen a jooju ne sëñ Muntaxa wax. yéen a jooju ne sëñ Muntaxa wax. ci barab boobee. ci barab boobee. ak war guñ ko war a def. ak war a xam la fa ne. ak xam la fa ne. tax mu yéene nu ko. tax mu yéene nu ko. jox nu liggéey ba. jox nu liggéey ba. ngir war ngaa jaaru sëriñ bi. jaar jaaru sëriñ bi. ak Cheikh Ibra. ak Cheikh Ibra. ca barab boobee. ca barab moom la dekkal. moom ndax mel na ni sëriñ bi jaaroon na fa ndax mel na ni sëriñ bi jaaroon na fa ànd ak ndongoom loolu ànd ak ndongoom loolu di maam Ibrahima Fall di maam Ibrahima Fall kon nag boo ñu ko boo ñu ko dooni kër waroon na dooni kër te koon yaakaar naa ni te kon yaakaar naa ci sëñ bi jotee li ci sëñ bi jotee du ko di mën a jotee du ko di mën waaye nag waaye nag war gu ko sëñ bi warloo. war gu ko sëñ bi warloo. moo tax mu jot ci. moo tax mu jot ci. ci nii mu ci jotee. ci nii mu ci jotee. daal di koy jox. daal di koy jox. bëgg nu liggéeyal ko ko. bëgg nag mu liggéeyal ko ko. loolu nag xam la ci la fa jaaroon démb. nee xam la fa jaaroon démb. loolu rek lay wane. nee loolu rek lay wane de. kon sëñ baa ngi leen di sant. kon sëñ baa ngi leen di sant. seenu taxawaay. seenu taxawaay. seen pasteef. seen pasteef. seenu nangu. seenu nangu. seen gëm. seen gëm. seenu bëgg. seenu bëgg. lépp yemb na. nee lépp la yemb na. ñu ngi sant ñëpp. nee ñu ngi sant ñëpp. ñu ngi gërëm ñëpp. ñu ngi gërëm ñëpp. di gërëm nag jëwriñam bi di gërëm dellu kër ñoom ji. sëñ Cheikh mi nga xam ne. sëñ Cheikh mi nga xam ne. moo jiite liggéey bi. moo jiite liggéey bi. sëñ bi teg ko ci loxoom. nag ci loxoom. ak rakkam yi. ak rakkam yi. ak doomam yi. ak doomam yi. ak dongo yi. ak dongo yi. kenn du ci ginnaaw. mais kenn du ci ginnaaw bi. nga fa rek. ni sëriñ bi bëgg mu mel ni. ba ni sëriñ bi bëgg mu mel ni. mu mel ni. mu mel ni. ba mu ne jo ba mu ba mu jëbbal ko ne jërë ngeen jëf. mu ne jërë ngeen jëf. jërëjëf rek. nee jërëjëf rek. moom lañ bëgg a dégg. moom lañ bëgg a dégg. bu ko amee rek. nee bu ko amee rek. am nañ lépp am nañ lépp kon sëñ baa ngi sant ñëpp kon sëñ baa ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi bismillah kenn bi maa leen di jottali samay kaddu. dama ko jëlee ci ñoom jëlee ko suñu jëlee fan ñu doon jottali. lépp rek ñu jot ñu jox baat ba ma waxoon it dama dellu ca delluwaat. Hmm. jëf loo xam ne Cheikh boobu Sëriñ Fall daf koo jëf defal ko Cheikh Ibra Fall. Hmm. jëf bi lépp nag mu ne lii sëñ moo def nga defal li sëñ Modou Moussa Fall toog rek laa tëjee loolu moom ñëpp dafa def te ñëpp nga defal noonu. bëgg nañ ci lool. waaw nga bëgg nañ ci lool. bëgg nañ ci lool. fi mu ne kat bu newoon nañ la bu newoon nañ la fekk kayal. Mhm. kayal lañ ko fekk. bu newoon nañ dëkk ba ba def tool bi ba tànn maa leen def ba ci ba. yow daanaka day def. waaw. liggéey bu tool bi sëñ bi rek. waaw bisimilah. Ibrahima. waaw liggéey bu tool bi ñu liggéey ko. waaw waaw. la ca gënoon rek. waaw mooy lii mu def. di ko sant ko. ndax sëñ bi da koo liggéey pas-pas barka Cheikh Ibrahima la ñu seetlu. mu génnee këru Cheikh Ibrahima. barka te ñun ñoo xam ne. waaw sëñ moo def na fi jëf ju rëy. barka ah. ah. Ah. ngi lay nuyu. di di nuyu njaboot gi nga àndal yëpp rek. nga xam ne njaboot yëpp seen njaboot lañ. ndax ndax yow la teg si kanamam. def la ngay jëw nee na mi ngi lay nuyu. di feddali ay cantam ak i ngërëmam. di leen ndokkeel nag ci bis bii. nga xam ne ñun lii sunna sunna su feddalikoo su feddalikul moo si ndax ñun sunu jaamu yàlla lépp mooy topp sëriñ bi rek jox ko sunu bopp desaluñ ko dara liggéey bi nga xam ne moom ngeen doon taxaw ba mu agsi fii sëriñ bi nee na sant na si bu baax a baax a baax nee na liggéey bi mel na na ko gënal ndax kawe na njortam waaye xam na ne yéene ju yéene ju ju dëgër ak pas-pas bu wér moo yóbbu liggéey bi foofee mu toll nga xam ne kër Cheikh Rafal jëm sa kanam rek la ñu xam waaye xamuñu deltu ginnaaw xamuñu taxaw jëfi tay ju ne day gàcceel jëfi démb loolu nag seere Faal moo ko faggu ba ba ba ñin fi bàyyi nekk sa di sa dox nee na liggéey bii di liggéey Tabaski nii ngeen ko taxawoo nee na xolam sedd na bu baax a baax nee na am na si mbégte moo xam ne kawe na lool te mbégte ba fii mu ne day feeñ ci kanamam waxtu ne muy jottali ay cantam ak i ngërëmam nee na li ko jiitu lépp nag taxawaay bi ngeen ko taxaw nee na dafa mag sëkk nee na dara desu si moom nag tëb diwul ni lu Serigne Modou Fall mbenn masa séq ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall rek moom fay nañ ko ko ba ba dollil ko si loo xam ne sax amu amu ko woon muy delloo nañ ko njukkal bu baax a baax ndax sëñ bi doy nettali ne sëñ Modou Mbenn daana wax ne sëñ Baye Modou Mbenn de magul li mu am si kër Cheikh Ibra Fall ak mag mayu ko ko waaye ak nangoo ko ko may nangu googee nag mu jubóo woon ak i magam ak i rakkam àndoon ak ñoom toppoon leen topp seen mën Moussa Fall liggéeyal ko liggéey ba mu solo ñu amul déggoo lool si li ñu nettali loolee moo feeñ ci seen ànd bii te loole képp kuy ku baax wala kuy xalaat lu baax am nga si mbégte te da ngay ñaan mu yàgg lool sëriñ bi nee taxawaay bii nga ko taxawu ak fii nga ko féete nee na xolam sedd na si mi ngi lay ñaanal suñu borom dëgëral la dëgëral say kattan dëgëral say cër te bàyyi la fi nga ànd ak moom lu yàgg lool si liggéey bi yaag mboolem njabootu Cheikh Fall gi nga ko seqal Serigne Cheikh Tokki teewoon na si julli gi ak ñi fi teew ñëpp ci njabootu maam Cheikh Fall waaye ñoom ñëpp rek Serigne baa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal taxawaay bi mat bu sëkk da di bis bii moom daa mënta waxtaan dafa mënta yàgg ndax kenn ku ne am na lu lay xaar sa kër ga waaye daal sant moom li sëñ bi waxoon rek sant moom du weesu sant sëñ bi daal nee na sant na di fedd liwaat yëpp nag li mu waxoon si jëmmi sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue nee na waxtu koy fedd li wax nee na ndigal li lam la waxoon si néeg bi nee na seetal waxtu wala soobe ndigal lii mu joxe muy liggéey baag lu mu mën a doon nu mu la soobee rek boo joxee nooy ndigal ñu defee ko noonu jox na la kàddoom te nee na des joxe bopp du roccu lam ni waaw nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp njaboot yëpp sa njiili suñ baa lay sant di la gërëm yàlla nañ fi teew na ngeen déwén te te ñun ñëpp ñu fekk te dal ko suñ baa ngi sant taalibe yëpp nag si taxawaay bi waaw waaw muy liggéey bee waaw sëriñ sëñ Cheikh da wax ni nu bàyyi xel sas bii nu sëriñ bi sas te jeexagul waaw te jeexagul muy muy liggéey bee sa mbàkke waaw dafay mel ni dafa ñor sëriñ bi lool ndax moom moom daa bëggul liggéey bi taxaw moom moom bu sañoon liggéey bi day wéy rek ba bu muy àgg nu jébbale ko. waaw ki neen sëñ Cheikh nee na ki la ko jox nee na yéen rek laa ko yéene muy sëñ Mountakha. alhamdulilah nee na wax na ko sa boroxaan. Ah, waaw waaw alhamdulilah Fall. waaw yàlla ngeen si am ndam. ñëpp ñu am si ndam barke Maam Cheikh Fall. waaw. waaw sëriñ bi nee na ngi lay sant. nee na ñu ngi ñëpp. waaw nee na mi ngi leen di ñaanal mu gudd ak ànd bu wér waaw nee na nga xam ni waaw mais sëñ Cheikh nee na nga xam ni yow la teg si kanam waaw waaw nee na mu ànd ak yow si liggéey bi waaw bu ànd ak yow si liggéey bi waaw waaw nee na boo ko newoon toogal bul jóg ñëw nga nekk sa féete si yow rek mu toog dootu dem fenn ndax doy nga ko sa liggéey ba waaw doy nga ko sa sëkk waaw boo boo bëggoon mu bañ a tee def dara ndax doy nga ko si lépp waaw waaw <laughs> loolu xam naa mooy sa bëgg yow it de waaw yéen a bokk bëgg defal yàlla yàgg lool barke maam Cheikh Fall waaw yàlla yàgg lool waaw sëñ bi njaboot gaa ngi nii rek ñi ñoo taxawu sa liggéey bi liggéey bi Cheikh Fall bi sa njaboot gii ñoo ko taxaw ba mu mel nii ñii toog ñii ñëpp rek ak ak ñu mel na ñoo ñoo taxawu sa ndigal lii nga am ba mu mel nii mu am sa màggal ga ba fii mu ne ndigal lu bàyyi ko sëñ Tuubaa ñëw fi yow taxaw nañ ko ba nga am si ndam ba ñëpp di ko wax addina bépp di ko wax bëgg dem ba si mujj junniy xar ak téeméer ak fukk benn ngayut ko sëñ Muntaxaa bëgg de te lépp taalibe yi ñii rek ko liggéey jox so ñaanalal ñii ñu wér ñu am kattan ñu yàgg fi ànd yow liggéey bi yàgg loolu rek mooy seenu bëgg dama la waxoon si néew bi rek ñëpp a la bëgg ñëpp a la sopp ñëpp a la yaakaar ñëpp a la bëgg a liggéeyal ñëpp nag waaw loolu loolu mooy li wér waaw ñaanal noonu am kàttan bu ñu la la Fall jërëjëf Fall na jëf ñaan sëriñ bi ñaan teelo yi teelo min Fall min min Fall min amin min Fall min amin min Fall min amin min amin Fall rayo